ensuite gars yi dañoo dañoo joge ci événement rek coow li bari ñu naan Boy ñaa Balla Gaye mais coach loolu lan la. waaw damay wax ne gis nga combattant day toll fenn foo xam ne du problème rek Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Bombardier Lac de Guiers Tapha Tine dañoo ne ñoom ñooy VIP. su fekkee ne dañoo ne Boy yegg na si VIP yi bëre ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers dafa war a pare pour ñëpp dafa war a pare pour ñëpp euh, affaire bi du la du du du du Balla Gaye de Balla Gaye oo Modou kenn tuddul keneen de Balla Gaye la ñu waaw ñun pare nañ ñun pare nañ si moom la des. mais coach sañ ngaa dugal Boy Niang ci Balla Gaye. Cheikh Boy bu ma amee dara lu ma koy moytuloo bay boo mu tekki ngembam ñun ñëpp ñu dem ñu toog yi dafa am fu ñu déparé am fu ñu yegg am fu ñu bëgg a dem fu ñu fi ñu bëgg a dem Balla Gaye def see bokk. mais coach yoo xam nga Balla Gaye. waaw ne du sa du sa yoroo ko xam nga qualité yi mu yor xam nga combat bi Balla Gaye Balla Gaye lim leen fas yéene sëf bu bu taxawee coach nga bëgg a jël sa booy bi mu jógee ci la nga bëgg faa dugalaat. waaw xam nga Balla Gaye encore une fois ma waxaat. c'est un grand champion c'est un bon combattant pour nga am combat bu neex il faut nga am ñaari combattant bilaay walaay talaay te Balla loo bañ njombar xam ne gudd na nopp mën naa daw ñëpp xam nañ ne Balla Gaye c'est un bon lutteur c'est un bon technicien te ku gëm boppam la. mais ragal. bu arbitre sifflé Balla Gaye naaw sa kaw. dañuy bëre ba ñëpp kontaan. kon yow pour combat Balla Gaye Boy moo war a gën a neex combat Balla Gaye euh, Boy la jegeer. c'est-à-dire que xam nga lu tax Balla Gaye Boy ñaar di neex. ñaari bërekat lañ ñaari wurekat lañ. te amul kuy calculer. moo tax combat bu neex lay doon bu taxawee. ñoo ngi non combat bu neex lay doon. <laughs> Cheikh bëggee naa la le grand champion. merci. ndax nu kazaalika. saison bi tijji ñu gis la fi stade bi rafet noo ko gisee. mais kontaan rek di ñaan làmb euh, yàlla làmb yokku parce que bu làmb yokkoo. Euh, lu baax la ci réew mi dama lay wax ni rek làmb tey jii li mu jur dañ ko war a siiwal ba kat tey soo demoon Amérique bëgg fa tëgg làmb du soxla sax ngay jël fii ay mbër di leen fa yóbbu bu dee Italie la même chose bu dee France noonu bu dee Japon noonu kon tey dañu war a gërëm làmb ak acteur yi nga xam ni ñoo fexe ba làmb tollu fii kontaan rek laa am doom. papa ñu dégg sa combat Balla Gaye. waaw Boy Niang Balla Gaye. waaw mais papa lu tax nga lu leen dugal ci Balla Gaye. non Balla Gaye war a bëreeg moom rek te amateur yi bëgg ko su amateur yi bëggoon beneen combat it ba combat boobu la ñuy wax mais Boy Niang ak Balla ba ñu daree wax loola yàgg na xëy na ren la yàlla dogal promoteur yi commencé sax di ci wax mais. booy ñaar dafa toll foo xam ne actuellement amatul droit sax di wax ay Balla Gaye lii ñuy wax léegi mooy Balla Gaye ndax nangu ngaa bëri booy ñaa non Balla Gaye dégg naa ne nangu na mais yéen ngeen génn ci défaite ci booy euh, ci ci la jaguer ngeen duggaat ci Balla Gaye est-ce que xam nga lu tax soo demee première maanaam da ngay passé ba première def def terminal waaw def terminal yaa nga dégg amuloo bac da ngay delluwaat wala da ngay defaat examen. mais Balla ne ci kaw. non dama lay moom laa lay wax ma bu fekkee ne da ngay jàng di bac da ngay defaat bac waaw kon kay war naa mën a defaat bac. ci ci ko bëgg moo daan Balla Gaye yaa ngi dégg Balla daan Modou Lo. ah Balla Gaye foofu Eumeu moom. Balla Gaye saf saful. Balla Gaye saful. maa la wax lii non Balla Gaye ndax li ma yoro ko gën a saf. Boy Niang moo gën a saf Balla Gaye. fuuf la na na xaaral ba promoteur bu baax ñëw ba joxe avance nga xool li ma lay wax. <laughs> waaw baax na baax na